muy ay murit boo amee lenn lu ñuy jariñ mooy jëfe ndigal ku ci bokk nag dem ba ñu tudde la ko di la ko dàkkental war ngaa sant ndax yoon wi ndigal rekk a ci taxa a jariñu kon maa ngi nuyu ñépp di sant sëriñ bi bu baax mi nga xam ni yàlla ñu dimbali defal ñu tawféex mu tànnal ñu boppam ñu doon ak njabootam ubbi bunt yu bari ku ci ne mu am fu la jaarloo ngir nga mën a yegsi ci moom waaye yéen ñii nga xam ne tey dama fee ñëw ni ko sëñ buub doon waxe léegi li si leen ci barab bu tedd bi ni ngeen xam ni Cheikh Béthio li mu nekkee woon dëgg la jataay bii firi na ko ak yeneeni jataay yi ñu ko moomale dëgg nag dafa tumuranke te fenn woomle waaye moom li mu newoon day dëgg ñi yàlla baaxe rekk a koy gis ndax moom bunt yi yàlla sëriñ bi ubbi yi jëm ci moom moom dey bariwul sarale moom pësës rëkk ci sëriñ loolu nag taw féexama yàllaa ko ko taw mu nekk ci li nga xam ni ni ma ko waxee du ñu baree koy xam ndax dëgg dafa rafle li tax dëgg rafle mooy du ñépp a ko mën a sol te sëriñ bi dëgg la woote ba mu ko wootee moo ñu defal tawféex ku ci ne nanga ñëwee sëriñ bi la soob ndax de at gis ki yàllay dénk am yi xolom nungu ko ca tuut mu daw di ko topp loola ku yàlla deful mbir ci yow munoo koo nungu munoo koo xàmmee looloo ko topp nag fa mu jaar yépp ay jaar-jaar la ak i làq-làq rek la woon waaye fii mu jëmoon rekk moo doon aw yoonam waaye yoon wu ne nag daa am ku lay bi yàlla boole ko nag ak mu boole ko ku mën a gindi muy sëriñ saaliw mu ne ci li mu ne di ko dund te ñu bari xamut la mu dund doon mu doon dund àjjana gu gu kawe àjjana bu ñu fay dem tànk bi jëkk dugg àjjana beneen bi du ko doog du ko dab ndax pecc mu neex ndax tànk bi jëkk a dugg dina yëg loo xam ni beneen bi moo ko koy jëkk a yëg ba bii du nungu bii dab ko booy xool sax cheikh bi noonu lay fecc day dugg day wetu li ma leen di wax lu sori la de dama ko fay yemele sax damay bañ a damay bañ a màbb rek waaye dama leen di waxal rek ni leen yéen ci li ngeen nekk nangeen jàpp ni lu dëggu la ki leen yàlla boole loon muy seen bunt ci sëriñ bi bunt bu rëy rëy la boroom cër bu rëy rëy la woon boo ko xoolee sax xam ni moom newu fi woon fa mu nekk ak fi nit ñi nekk bokkut loolu nag boo koy faral di gis cette particularité am na lu ne ca biir lu mu mënul wax di ko jéem a extérioriser ndax nit ñi man koo xam te du ñëpp a ko mën a xam waaye man xamoon naa ko muy ko yàlla baaxaloon sëñ Saal nii rek la mënoon a demee li lay woon ni Cheikh Béthio li mu yoroon lu wér la jigéen ñi sax a ngi yëngu te du aaday lislaam ñëwaguma nag ci ndigal li waaye dama ni wolof nee na doole wat na lu mu yëgut doole jee bari rek doole ji doole ji moo bari ba nga xam ni yàlla lenn rekk lay fay mooy yëg te cheikh bi ni mu doon yëgee ak ni muy réagiré bariwu wu ci wooni moroom mag ñu jëkk ña rekk lañ doon xalaat ay mambay mbay ak sëñ ba sant si sëñ malik Bassine si nga xam ne da ko doon defaral ku tedd ki sëñ Mbay Sarr di ko defal seexul Khadim di yëngu ci seen yëngu yii di ko yëngu di tëgg sëriñ bi di ko dégg te terewu ko fa ñu nekkoon a sori maam Cheikh Ibra Fall mii ñu tudd tant bi yëngu dafa yëgoon sëriñ bi cheikh bi bu ko sorele gaa yooyu bul jàpp ni rekk yàlla dafa mayoon ñu jëkk ñi bàyyi ñu mujj ñi déedéet yàlla li mu yor du jeex waaye cër boo gis ak wërsëgu waay Cheikh Béthio suñu wërsëg la woon mu ne woon ku baax ku mat ku xam fi mu tegoon tànkam te du lépp la mën a wax li mu doon li doon rëcc mu di ko wax nit ñi jàpp ni nit ñi jàpp ni ëpp na booba tuuti la wax maam Cheikh Ibrahima Fall dafa ne ah doom man waaru naa nee na sëñ Bamba may na ma fukki yëf ak ñaar ma jëfandikoo ci ñaar rekk àddina yi bëgg a tukki moo bu ma jëfandikoo woon lépp fu ñu jëm mu ni julliwul wóorul te may na ko nee fukki yëf ak ñaar te kii di ñu suñu sang bu baax bi de Cheikh Saalihu moom xaadimu rasul lu ne mën na ko wàll na ko jàngoro joo xam ni bala ñoo xam li mu yor rek muy suba kon nangeen xam bu wér ni sëriñ bi sedd na leen sedd boo xam ne bii bala ngeen neen ci teg seen bët rek muy bu ëllëgee ba mu woo leen ni leen kaay leen ma ànd ak yéen ci lii ma sëriñ bi jox kon fi ngeen nekk noonu la bu leen kenn wëlbati bu leen kenn dëpp cheikh bi demul fenn yàlla dafa màndu du def li muy def ba pare yëkkati ko di ko yóbbu feneen déedéet moom mii ngeen di xoolee Cheikh Béthio loo leen doon wut ca moom di ko ca am boo leen ko ci wutee di ko ca am ndax ndigal ko fi teg kenn amul dara kenn mënul dara sëriñ bee am lépp moo man lépp fa muy def la ko soob du laaj kenn day jëfandikoo rek ca kattanam gaag coobareem ga te du laaj kenn njeem tubaab moo man bàyyi retraité mu ni ko toogal ca kër ga ma lay fay di fay doom yi ñuy jëm di jëli allocation familiale mu leen di fay masamaak yàlla mi am lépp man lépp kon jàpp leen rekk bu mu taxaw bu mu laal suuf na jëm ca kanam ni ko sëñ bi waxe rekk ba àjjana rekk moom mii wóor na leen ni daggitu Cheikh Béthio la ak ñi mu ko bokkal ngalla bu leen wor Cheikh bi ndax cheikh bi kat ci ndigal rekk ci ndigal rekk la ne ci la sax musula am bëgg-bëggu boppam day jéem di xeeñtu sax li sëriñam ba bëgg mu di ci jëkkante kooko de ko defoon noonu nag jógu fi la mu amoon wàññeekuwul la mu mënoon tey la ko gën a man ki ko fi nekkal mooy kii borom reeju neex ji ñu koy tudde mbégte mi muy a cheikh mouhamadul muntaxa fu mu joxoñ jàpp leen ni noonu la te moo ko samp te it mooy boroom yoon wi kon nag yéen gindiku ngeen ndax cheikh mouhamadul muntaxa nee na moom la te dem leen rek ci kanam ñépp dinañ ci teg seen bët waaye moom li ko war mooy bul bàyyi kenn bu kenn bu kenn dem ku demit jëlil mbir lu baax du yomb day metti day jafe te lii xew day wane jàmbaarug suñu waaju baax ji rek li xew day wane ni suñu waaju baax ji cër bi dafa rëy cër bi nit ñi xamaguñu cër bi ndax ki ko ñaagal ki ko ñaagal am na am na reer muy sëriñ Saaliwu ñaagal na ko ñaag boo xam ne bii cheikh bi yàqu ko xam nga lu taxa fal la ba pare nga fàttali la fal moom raison d'être am raison de vivre am existence am yépp Serigne Saliou rek la moo tax yàqul ñaagam ba ñaag ba nag dañ koo dolli yàllaay jëfe noonu at mu ne day dolli kon lépp a ngi ci sampam bi kon ànd leen ak moom di dund li ngeen di dund bu leen xool dara bu leen déglu dara ndaxte sëriñ Saaliwu jógu fi sëriñ Cheikh mu baax maa ngi fi mooy moom dëgg dëgg dëgg dëgg sëriñ Saaliwu Cheikh Mouhamadul Muntaxa mii mooy dëgg dëgg dëgg sëriñ Touba ku ne ci diggante boobu mooy looy xalaat xanaa xool ci kanam rek xool ci kanam rek bañ a sëriñ bi ci taalibe sëriñ bi ñii ñooy doomam ñii ñooy njabootam loo man jàppal bu kenn dem bu kenn rëcc loo man dimileel ak njabootam gii mu fi bàyyi ñuy ay gar fii bu ñëwaatoon bu ñëwee fii la leen di fekk li xew nag boo gisee ma woo sëñ Saal ni ko dama bëgg nganuk Cheikh Mouhamadul Muntaxa gi nga dugg ci doon ci dara ndax bi ñuy natt masaalikul jinaan dama àndoon ak Baye sëriñ Ngom yal na yàlla yokk ay ngëneelam ak leeram ñu dem Touba seeti sëriñ Saliou ba ñu bam ñu waxee tegu xeer weeg na muy deme lañu ni dinaa ci yebal Cheikh Mouhamadul Muntaqa mu ñëw teg si xeer wi ni ma nag yow mii boo demee na nga dem ba ca Cheikh Béthio nga waxal ma ko ko ni ko na ca ñëw te na berndeer gan ñi ma ñëw ànd ak Baye Sëriñ ak sàmba Jaw Male ñëw fekk ko ci saalam bi mu toog guddi lool mu ni ma kañ la defe naa ma ni ko suba la xaw ma ginnaaw suba ba ñu ñëwee dix heures fekk na xéewal yépp noppi yàlla def pàkk ba tuuti te lépp sëriñ saaliw la ndax booba plan bi ñu joxoon méngoowul ak plan bi mu bëgg ca teggin ya ak baax ba ak xam-xam ba muy soppi ñuy dessiner muy soppi ba mu mel nii mu mel tey nii Masaalikul Jinaan mel Sëriñ Saali woo ko dessiner lépp moo ko def di woo may sa ture di ñu woo di wax ni suppil lii benn bés mu ni ma xanaa xamoon ni juma du du ni du ni du ni yàng ci kanam wala mu mu mu ni mu ni yoll sew wax ma ni jumaa war a mel jàkka ñuy dindi di dindi di dindi président Ablaye Wade boole ñu ak ay marocain roi du Maroc mu ni woon da ciy jàpp may sa ture dem Maroc marocain yi di ci yokk fu ñuy kii fu ñuy defareeg fu ñuy nangam nangam bu ñëwee woon sëriñ bi rek sëriñ bi di ko wax defeel nii defeel nii ba palan bi mel nii ñu dëpp ko ca pàkk ba pàkk ba matatu ko lu gudd a gudd la muy dem ba ñu jox ñu pàkk bi nekk soixante mille mètres carrés ñu ne ca cheikh bi jàpp ci di ñëw ca liggéey ba di ko seet si ba ni mu demee àjjana moo tax lu fa xew lu ne ma wax ko sëñ Saal mi ni ko na nga ñëw ñu bokk ko ndaxte bu fi newoon te mi ngi fi noonu lañ koy ànde ndax mbirum sëriñ Touba yaatu na moo xool asamaan si ñooyam ku ne mën nga cee am sab cër am ci sab sag te du yàq sagu kenn dara day gën a baax rekk ñun li ñu bëgg mooy nil sëriñ bi li mu bëgg na ko am nu mu ko mën a amee nag bu jaroon sax ñu dem ba ci réew yu gën a sori jëli fay nit ndax ñu man ko ngir sëriñ bi am ko dinañ ko def mastamaak njabootam gi lépp a ngi ci ñu bokk ko ca ubbite ga ak taxawaay bi rafet ma xalaat tit ni ba sëriñ bi di teg xeer wu jëkk wa loolu la ma waxoon sëriñ bii nag tey jii mu ni dina jël jëmmam ju tedd ji ñëw ndakaaru am ak ñun ñetti fan ñëw juleek ñun ajjuma toog fi samdi toog fi dimanche ba altine te li ma yéene sama bopp rek laa leen yéene moo tax ma woo sëñ Saal ni ko na ma ko sëriñ bi digale woon dama bëgg nga dugg ci ànd ak sa mbooloo ñëw ñu jàpp ci liggéey bi ba mu rafet ba bu ñu amee ngërëm ñun ñépp ñu bokk ko ngërëm yaatu na te kat ab dof rekk bëgg a yenu lépp ndax ku yenu lépp du la jig ni ngërëm toll ak ni mu sakkane surtout jóge ci Serigne Touba moo ba bokk bokkul nit ñi foo jëm <laughs> te yéene naa leen ko yéene naa ko cheikh bi dama bëgg fa mu ne ngeen di ko liggéeyal ci nekkam fii ngeen di ko gis mu ngeen noppi koo gis mu nekk fële ngeen koy liggéeyal xéewali sëriñ Tuubaa di gën a dotteeku ci kawam mu dee leen koy dencal ba ngeen ñëw rek yàlla na yeex loolu tax ma ñëw ni ko indil sa gaay yi waañ waa ngoog ma jox leen ko ndax bi may dugg fii sax day ñamu soos bu neex xeeñ na ma yéen xam naa ni ñu man soos ak ceeb ngeen te cheikh bi daan naa ko dégg muy wax bernde rendi kon looloo tax rek ma bëgg ñu bokk ko ndax yéen fii sama kër cheikh bi sama lépp la génnuma fenn génnuma ci sëriñ bi génnuma ci mbokk ndax mbokk weesuwul kii ma dendal ab sëtëma moo jur ndeyam jële te kii may baayam ndax maag ki ñoo bokk lépp loolu te mbokk gi jiitu ko mbëggeel gi tamit jiitu ko ku ma bëggoon la ku ma bëggoon la ku ma soppoon la waaye barkeb Sëriñ Tuubaa maa ko gën a bëgg ci sama biir xol bi la ne woon ba nga xam ni njabootam gi li ma yéene sama bopp rek laa leen yéene moo tax ma bëgg ngeen ñëw ñu ànd liggéeyal sëriñ bi ba sëriñ bi dotti ñu ay gërëm bu ko defee ñu bokk ko ñun ñépp kon sëñ Saal maa ngi siyaar ñépp di massawu coono ñépp di la wax tamit ni bégg naa ci jotaay bi ma fekke nii rek la moom daal fii mu tegoon ab tànkam teg leen ko fa rek xam ni foofu la moom làmbatuwul woon dafa dajoon dëgg dëgg dëgg te li mu dajoon xam na ko contre vents et dara mënul ko woon a taqali li ngeen gis ñépp nag yëfi saayir rek la li ngeen gis lépp yëfi saayir la moom ay mbiram sëriñ bi noppi na ci woon yàgg na cheikh bi li mu dund sax bari na nekkatul woon ci nit ñi mu nga doon dund dëggi dëggi dëggi dëggi dëggi dëggi texe la doon dund gisul doom gisul soxna gisul kenn sëñ bi rekk ma ne sax moo tàbb ci moom ba mu mën a xàmmee waaye moom li mu doon dund moom rekk a ko xamoon ak sëriñ bi dëggi dëggi texe la doon dund kon yàlla na fi barke bi yokku yàlla bi mu fi jóg mukk yàlla na saa su ne muy gën di yokk di gën di sotteeku yàlla na ko yàlla wuut sëriñ saaliwu wuut ko ci njaboot gi sëriñ saaliwu yàlla na lay sa kàttanal yàlla na la gën a dëgëral lii nga xam ni yàlla moo la ko boole ak njabootuk cheikh bi yàlla bu ci dara ayib yàlla na am ni nga ko bëggee ak sa wejur yu baax yi nga àndal ak sarak yi jàppal rek ndax ñoom ñaar ñii day duñu gis ëllëg cheikh bi am kersa ndax ñoo ngi ànd ak njaboot gii di leen gunge ngal la del xool seex bi ci ñoom rekk di ko xool ci njabootam gi di ko xool ci doomam yi taalibeem yi boo ko defee day gën a dëgër gën a baax gën a yokk rek daa am luy xew loo xam ni bu mu la dab doon sa wéyjur mu am ak njabootu boppam njab ak njabootu xolam ñii njabootu deret lañu ñii njabootu xol lañu nga bàyyi njabootu xolam gi ak njabootum deretam bi topp sa njabootu bopp wala nga jël leen teg leen ci ka njabootu ki tax nga am boo ko defee war nga kooku te doo ko def jàppal njabootam gi nga xam ni njabooti deretam lañu nañ la gënal sa njaboot njabootu xolam gii nañ la gënal sa jëm bu ko defee day day gën di neex rek ñu ñaan mu yàgg lool barkeel lool ci barkeb sëriñ Saliou maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm sama soxna see ndey deet xool ma daa am lu ma la bëgg a wax ànduma ci dara ci yow rek de yow xam nga man xam naa may sa biige it xam na man yow rek